asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu am mbégte di ci ànd ak yéen ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h di ci dalal saa su ne ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci lépp lu ñel wàllu wérgu yaram te ñu am mbégte nag di ci dalal ki nga xam ne moom mooy madame euh, Fatou Céline Bass Diouf moom moo jiite euh, kuréel bu ñu naan euh, kon Marfo nekk nag ab kuréel boo xam ne dafay toppatoo jigéen ñi nga xam ne dañoo amee lii di fistule Euh, donc euh, ñu lay nuyu balaa kon ñu dugg ci waxtaan bi ñu may la nga nuyoo ak euh, mbokki auditeurs yi. jërëjëf matu maa ngi lay jaajëfal ci invitation bi nga ma invité tey ngir ma am occasion waxtaan ci fistule obstétricale di nuyu auditeurs réew mi FM yëpp di la nuyu di jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne. seen ñu ngi intéressé wu ci fistule obstétricale di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. waaw man nag maa ngi tudd madame Diouf Fatou Céline Bass di conseillère en travailleur en travail social di coordonnatrice maanaam lëkkalekat. Mhm. bi nekk ci kër gi ñu naan. MARFO muy maison d'accueil et d'appui à la réinsertion des femmes pour la prise en charge de la fistule obstétricale. Mhm. waaw muy kër gi yëngu ci euh, gannaaw lëkkaloo ak ministère de la santé. di jàppale jigéen ñi di leen defaral accompagnement psychosocial di leen defal réinsertion socio-économique maanaam di leen delloo ci seen xel ndax xam ku ne xam na ne feebaru fistule obstétricale bu dal dalee dañ lay beddi mm-hmm. maanaam liñ naan stigmatisation bi dafay am mm-hmm. euh, ci contexte bi daf ñuy xalaatloo sax ñi am covid mm-hmm. di ñaan yàlla aussi feebar bi yàlla defal ñu ci jàmm bu baax a baax a baax ndax di xam ne Covid bi tamit euh, buñ ne euh, stigmatisation ne fistule muy doublement jigéen ñi am euh, fistule dañ leen di stigmatiser doublement ndax Covid bi xam nga boo amoon boo amoon déjà jàngoro fistule obstétricale boo doon def benn activité xam nga ne ak Covid bi say sa dootoo ko mën mhm. say mbir gën a gën a métti moo tax ma kontaan ci invitation bi pour ñu ñun yee nit ñi surtout ñi nga xam ne ñuy jàppale femmes yi am fistule ak ñi dëkk ak ñoom ak ñi leen jege mhm. pour ñu gën leen jàppale ndax covid bi bu jàppoon koo xam ne ay ay euh, économiquement koo xam ne mu ngi daan def ay activité am dina gën a métti. ci koo xam ne dafa amoon fistule. koo xam ne dafa toog euh, voilà donc ñu lay remercier encore une fois ci disponibilité bi. Euh, donc wax nga ko fistule obstétricale dafa nekk ab feebar boo xamante ni lu ñu naan beddi daf ci bëri. beddi daf ci bëri parce que ni feebar bi melokaanoo la mais askan wi parfois dañuy fàtte ni feebar moom feebar la te li ñu naan jommul kenn du euh, loolu dafay nekk lu am solo mais côté stigmatisation dinañ ci ñëw ci kanam. Mhm. mais pour ñu dugg ci carrément fistule bi ci côté technique bi tey euh, peut-être xëy na am na ñoo xam ne amaana ñu ngi dégg fistil mais ba tey mhm. xamuñu exactement lan mooy fistule obstétricale. nga gën ñu ko faram-fàcceel. voilà fistule obstétricale du feebar par exemple comme yeneen feebar yi comme cancer comme yooyu. Mm. fistule obstétricale feebar bi ci wasin lañ koy jëlee. Mm. ndax mu obstétricale Euh, gynécologue obstétrique rek wasin la lay la lay la lay jox donc bu ñu ne fistule obstétricale ah, wasin lañ koy jëlee muy poche saw bi moom la matu bi di yàgg mhm. bopp doom bi di ko puus di ko puus ba mu def bën bën donc femme bi dootul mun a retenir ay sawam wala poche bi dem gannaaw kër mara day kii doo femme bi tamit dootul mun a retenir mhm. muy fistule mu loolu mooy ñeewal fistule obstétricale donc cystite obstétricale lu koy joxe mooy matt bu yàgg. ñett ba ñeenti fan te demuloo ci structure hospitalière yi. Euh, ñi muy faral di dal tamit dañoo néew doole dañuy jànguñu école te dëkk ci ay zones yu enclavé. mu mm-hmm. enclavé yoo xam ne mun suñ peut-être mun suñoo def visite médicale te fi ñu nekk amul césarienne. Mm-hmm. ndax jigéen bi buñ ko teelee jot ba defal ko césarienne maanaam loolu yëpp. du du ci yegg. Mhm. donc bokk na ci tey fistule li koy joxe euh, mun nañ koo waxee benn négligence boo xamante ne peut-être am na ci yenn zone yi. Euh, nga xam ne peut-être du ñu am accès ci yenn euh, bërëbu fajukaay yeeg yooyu parce que wax nga ko lee mat bu yàgg donc ça veut dire que nit ki toog na benn moment bu yàgg boo xam ne waroon na dem hôpital te demul. Ah donc foofu ñu wax ne responsabilité bi. kon dafa partagé diggante ki nga xamante ne teelu dem ak autorité yi peut-être ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon teg euh, ay structures yu jege. mun naa ko bañ a tuddee négligence mais mun naa ko euh, tuddee par exemple euh, manque d'opportunité. Mhm. manque de moyens ak ñàkk xam. Mhm. xam nga taux ñi ñi dal ñu ci bëri ay analphabètes lañu. Mhm. xamuñu ba pare zone yi ñu ngi ci parce que état bi mu ngi def nag ay jéego yu bëri bëri parce que zone yu bëri mu ngi fay jéem a ay soins ay SONU. Bloc-SONU mooy euh, bloc euh, service euh, obstétrique néonatal d'urgence mm. wala pour pour rek jigéen ñi mun a am accès si yooyu hôpital bi gën a ndaw poste de santé bi gën a ndaw ñu ngi koy jéem a defar pour femmes yi mun a bañati am yooyu loraange mais xëy na zone yi am na yenn zone yoo xam ne Sénégal ni mu bindoo la ni mu bindoo la par exemple day enclavé nekk ci ay zone yoo xam ne jafe na sax pour ñu def fa tali yooyu la ay dëkku dëkkaat la par exemple di dinañ la nit ki Tamba la dëkk mais boo koy wër di nga dem Tamba daw lu yàgg yàgg yàgg xëy na balaa ñuy mën a am lu ñuy defaree tali bu yàgg foofu dina jafe mm-hmm. mais ñu ngi ciy xalaat mm-hmm. ñu ngi ciy xalaat ba peut-être kenn koo xam ne bu dëkk zone de sori boobu bu amee mbokkam bu nekk Tamba mu ñëw jege si Tamba mm-hmm. loolu yëpp si yee bi la bokk ñu leen di yee di leen ko wax par exemple boo xamee ne koo xam ne ñu ne la bu fekkee ne da nga am yenn morphologie yi boo ñu yee la ne la da ngay recourir césarienne automatiquement booy wasin boo nekkee handicapé nga war a recourir césarienne bu tuutee lool sa poids nga anémie yooyu yëpp dañ koy def ci prévention bi. Mhm. ñu ngi ci mhm. euh, yaa ngi wax césarienne c'est vrai mais tey euh, bu ñuy xool ci euh, peut-être protocole de soins yi tey césarienne nekk na loo xam ne dafay laaj benn matuwaay bi. Mhm. mais on parle de zone yoo xamante ne parfois pour nga gis sage-femme bu la accoucher sax problème la asumaan nag ku lay defal césarienne ak chirurgien yu demee noonu. parce que en général ay matrone ak yooyu noonu ñoom ñooy nekk ci partie yooyu. Euh, bàjjenu gox yi maanaam acteurs communautaires yi ñoom ñoo war a porter combat boobu. absolument mm. parce que bàjjenu gox yi xam nga ñu ngi dépendre directement ci ministère de la santé ñu ngi liggéey ñoom liggéey bu am solo gis nga leen sax ci Covid bi. Mm. bàjjenu gox liggéey bi ñu doon def pour sensibiliser population. donc euh, relais communautaire yi muy bàjjenu gox mi muy acteur dynamique porteur euh, de porteur de dynamique communautaire muy conseiller familial ñooñu ministère de la santé dañuy dépend ñooñu ñëpp dañ leen di def suñu ay relais pour fu ñuy mënu la yegg ñu yegg fa tasaare xibaar yi. pour mun a euh, kii euh, ak ak yenn ONG yi comme ONG bu tudd Fodé mu ngi mu ngi mu ngi Kolda am na ONG am rek am Tostan aussi ñu ngi def ay liggéey am solo pour yee pour yee population mhm. pour yee population et puis ñu ren bi ñu demee camp de fistule 2019 gis nañ ne euh, ñu ñëw ci camp bi benn nouveau cas yi bariwul ñaar benn ñaar la ñu am nouveau cas yëpp cas yi cas yi ñoo am yëpp ay cas yu ancien lañu mhm. maanaam seen fistule bi dafa yàgg ñoom waaw ñu dellu si di def ay opération mhm. mais cas yu fistule moom vraiment mu ngi jëm ginnaaw mhm. ndax vraiment plateau technique bi moom ministre de la santé relevé na mhm. relevé bu baax baax mm, tey est-ce que am na ay xayma yoo xam ne am na ci peut ay nombre de cas yoo xam ne approximativement am ngeen ko ci femmes yi nga xam ne am nañu feebar bi euh, par exemple euh, récemment ministère ministre bi dafa doon joxe ndimbal euh, femmes yi handicapées yi femmes fistules yi femmes yi vivant avec le VIH femmes euh, yi en milieu carcéral daal femmes yi les femmes en général mais plus particulièrement les couches les plus vulnérables donc man bi ma defee un peu le tour euh, j'ai eu à appuyer 148 femmes 148 mhm. femmes bu ma déparé ci nombre bi en général euh, dañuy wax ne chaque année 400 cas mooy déclaré au Sénégal mooy ak approximativement. Mhm. mais suñu dépenser cent cinquante cas. Mhm. de prise en charge yu hôpital Ogui euh, di def. Mhm. vraiment donc euh, code ça tourne autour de ça man cas cent quarante huit te ñëw cent cinquante cas la ñuy wax. Ah, voilà voilà. am na période boo xam ne dañ doon amal je pense que c'était en deux mille dix huit euh, dañ doon amal journée bi. internationale bi ñuy def le 23 mai si je ne me trompe euh, directeur de cabinet ministre dafa waxoon ne dañuy teg ak ligne budgétaire mhm. pour ñi nga xam ne mooy les femmes est-ce que loolu mujj na antu wala exactement waaw dañ koy proposer xam nga kii wagul de assemblée mhm. pour ñu ñu ñu ñu ko euh, euh, député yi ñu mun ci tranché mais ils sont très sensibles nag député pour ñu mun a allouer une ligne budgétaire mhm. pour euh, prise en charge euh, de la fistule parce que euh, même ligne boobu amagul mais la la la prise en charge elle est gratuite. Mm-hmm. waaw opération bi boo boo amee fistule au niveau de Auguste c' est gratuit ñoom ils se déplacent dans les régions chaque année naan camp de fistule donc dañuy opérer jusque même à la frontière Guinée ñoom ñëpp dañuy ñëw bokk ci opération yi vraiment donc loolu jéego bu mag la buñ ci yokkee loolu nag dina gën a baax ñuy ñaax député yi rek ñu ñu ñu gën. ñu farlu ci ci pour jàppale ñu. Mm-hmm. waaw ndax mu gën parce que feebar bu. xam ne c'est une maladie très handicapante pour les femmes mhm. te on a besoin de tous les bras aussi bien des jigéen ñi ko góor yi pour suñu développement mhm. réew te jigéen am na ci solo mhm. est-ce que ci côté euh, fistule bi bu soo peut-être euh, incontinence boobu ngay am par rapport ak urine bi am na yeneen symptômes yeneen màndarga yoo xam ne dina feeñ ci ku jigéen ki waaw parce que récemment am na benn femme dañ ko appuyé ndeysaan ci 23 mai 2019 ba recevoir on a chèque 500 000 pour euh, Euh, accompagnement psycho réinsertion socio-économique mais elle est revenue dafa amoon xaw a amoon xam nga affaire saw yi dafa doon jàmbat affaire rek ba ñu yóbbuwaat euh, donc am ay yeneen euh, conséquences yoo xam conséquence moom parce que tamit gis nga femmes yi yenn saa yi pour bañ saw bi di dañuy dañuy bañ a naan loolu yëpp day indi ay déshydratation xam yaa ma gën a xam mhm. yooyu yëpp day indi ay feebar yu doy waa si nit parce que boo déshydraté mun na la indi yeneen ay anémie ak kenn xamul pour bañ rek saw yi nañuy def normalement rek di lekk normalement di alimenté normalement di dem di gis seen médecin yi loo gis lu la jaaxare nga woo médecin bi la opéré wala ñun mun nañu woo mhm. à tout moment man sama numéro de téléphone c'est le 77 612 32 10 boo ñu woowee bu fekkee ne danga jaaxle yaa ngi dute ne fistule la woo ba du fistule la boo ñu woowee rek ñun dinañ la teg si yoon wala nga woote ministère de la famille boo wootee ministère de la famille wala mu am ku fa xam rek directement man dinaa dinañ jokkook man ma mun ñu war a def nécessaire waaw loolu mooy indi complication te malheureusement yenn information yi ñi nga xam ne dañ ne ci yenn zone yi duñ ko faral di am parce que tamit euh, li ñu naan dafa am benn réalité socioculturelle donc femmes yooyu lu ci bëri pour ñu mën a génn seen kër bàyyi njaboot bi bàyyi jëkkër bi bàyyi famille beeg yooyu dem toppatoo ji seen wérgu yaram dafay dafay difficile parce que bon euh, dafay nekk ay jigéen yoo xamante ne euh, seen baat du sori torop voilà au sein de leur famille. waaw loolu tam dëgg la réalité socioculturelle moo ñu sonal. Mhm. donc réalité socioculturelle ñoo ñoo ñu sonal vraiment ba ñu ngi ci ñu ngi ciy def ay ñu ngi ciy xalaat parce que bëggoon nañ def benn argumentaire si suñu ay projet la ba. Mhm. argumentaire médi euh, médical d' abord pour woon nit ñi ne feebar dong la wax leen symptômes yi woon leen nu muy kiiwee xalaat nañ tamit def benn argumentaire. musulman ak chrétien mhm. pour boole ci imam yi ñu xutbaal ñu wax jigéen euh, ñu ñu joxaat ko place am ci diine li ci diine wax parce que yenn saa yi bu ndaw si feebaree sax dañu dem ba naan ko mënatoo julli wala mënatoo def soo sellatoo mënatoo togg waratoo tegal nit ñam yooyu yëpp def ci ay réalité yu grave la jigéen amul baat donc même pour décider ci wér-gu-yaramam comme ni nga ko waxee mu gis nga planning familial bi ay problème moo ci nekk pour décider na damaa war a def planning waruma def li te gis nga jigéen ji am fistule war na mun a dafa war a def planning mm-hmm. non seulement dañ ko war a opérer bu amati doom mu def césarienne mais war na def planning pour espacé ay naissance am loolu yëpp la donc il faut ñu boole góor yi foog ñu góole góor ñi donc ñun au niveau du du de la am na yenn benn programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee l'école des maris peut-être ñun dinañ xalaat euh, boobu ci boobu wàll boole góor yi ñuy ñëw ñuy waxtaan ak ñoom ndax ñoom tamit ñu nekk relais auprès de yeneen góor yi pour yooyu ñu briser yooyu glace. Mm-hmm. waaw ñoom euh, am na tamit concept bu ñu bu bees bu ñu naan nijaay gox. mu xëy na bu ñu sukkandikoo ci nijaayu gox yi. Mm-hmm. dinañ mën a rompre un peu euh, paradigme beeg. voilà euh, bàjjenu mm-hmm. c'est important voilà ba tey rek may fàttali ni mbokk yi a ngi déglu. seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 te ñu am mbégte di ci dalal ki nga xamante ni moom mooy euh, Fatou Céline euh, Bass Diouf moom mooy coordonnatrice bu maison d'accueil et d'appui pour la réinsertion des femmes pour la prise en charge de la fistule obstétricale di euh, Marfo voilà donc tey ñuy waxtaanee feebar bu metti boobu nga xam ne moom mooy fistule obstétricale di dal jigéen ñi mu nekk une couche vulnérable donc. vulnérabilité couche jigéen yi bokk na ci outil amuñu li nga xam ne mooy ay moyens financier ay jumtuwaay yoo xam ne dina tax ñu mën a di defal seen bopp tey ji ci côté finance bi aussi mban euh, jàppal ngeen di amal ñooñu parce que c'est sur que ni euh, jigéen yooyu en général daf ci am ñoo xamante ne peut-être dañuy dem ci tool yi ñii di dem ci feneen ak feneen ci paañ yeeg yooyu ci géej gi pour mën a subvenir aux besoins de leur famille donc tey ñooñu euh, côté finance ban yu ngeen leen di apporter waaw ak suñu partenaire muy CEDEAO mm. notamment le centre de la CEDEAO pour le développement du genre mm. dafa am benn projet d'appui euh, à la réinsertion socio-économique des femmes euh, euh par la fistule obstétricale mu nekk benn package boo xam ne dañ ciy def euh, accompagnement psychosocial d'abord parce que dañ leen di bett stigmatiser leen comme ni ma la waxee mhm. ba ñu delloo ci seen xel bu ñu delloo si seen xel na ñu laaj leen lan mooy sa projet de vie am na femme yoo xam ne dañ la naan dama bëgg def commerce nii ne la dama bëgg def embouche boo fi nii ne la dama bëgg a def transformation lu ku nekk daal ak li doon sa projet bi léegi bu ñu demee ñu defal lañ ci formation bu lañ ci defalee formation ba ñu xam ne vraiment euh, jaar na yoon léegi ñu euh, subven euh, CEDEAO daf leen di jox subvention bu 500000. Mhm. léegi ñu accompagner leen ñu commencé démarrer récemment mais le 23 mais bi ñu koy célébrer joxoon nañ 17 femmes ay chèques donc vraiment. def nañ un peu le suivi projet yi démarré boobu bu baax ak ñiy def commerce vraiment ñii di euh, yëngu ci jënd ak njaay ñii di am na ñoo xam ne sax defoon nañ euh, ci tabaski bi seen opération tabaski mm-hmm. vraiment vraiment te am na yeneen structure yu nekk ministère de la femme yu ñuy ab jàppale comme PASNEC am nañ ñu ñu jàppale woon dans la région de Thiès defal leen jox leen brebis fécondées ak quatre cent mille jàppale leen ba ñoom tamit euh, pour Euh, te dara te joxewuñu benn apport donc ak waa euh, euh, SEDAF SEDAF mooy SENAF bi ñoom tamit ñu ngi leen di appuyer ci ay formation di leen boole pour gën a wàññi vulnérabilité donc loolu mooy vraiment ni ñu leen di def pour jàppale leen di woo nag partenaire yi parce que femmes yi am fistule boo gisee li ma la limal am na ñu ñu ay camp de fistule yu bari yu ñu def ñu opéré leen ñi nga xam ne ils sont éligibles ah ci activité koom-koom yi vraiment bu ñu amoon yeneen partenaire pour parce que man structure bi mayor yor vingt lii rek la am par vingt femmes rek la ñu mën a jël mais bu ñu mënoon am yeneen partenaires yu ubbeeku mm-hmm. en dehors de suñu partenaire ministère yi euh, ñu jàppale ñu pour ñu gën a mën a jël par exemple ñuy jël euh, chaque euh, trois mois ñu jël vingt femmes mu gën a gaaw chaque trois mois ñu jël vingt femmes mu gën a gaaw su ko defee femmes yëpp dinañ mën a autonomie autonome parce que ñun li ñuy viser au sein du ministère c'est de l'auto d'autonomiser les femmes mhm. voilà vraiment autonomiser les femmes surtout ces femmes qui sont très très vulnérable mmh. vraiment. ak poids social bi aussi. Euh, bëri na ci tamit euh, ñoo xam ne seeni jëkkër dañ leen di abandonné. loolu bëri na ci ñoo xam ne vraiment dañuy dem ba dootuñu am wéeruwaay. genre cas yooyu noonu naka ngeen leen di traité en général. voilà loolu bu amee parce que am na benn visite bu ma defi woon. bi ñu demee ci visite bi bon ñu dem ñuy waxte ndaw si dañ ko doon jël ak ay image mm-hmm. léegi man j'ai remarqué que ci biir salle bi dafa amoon lal mais ñu bàyyi ko bi muy wax mu wax après mu ne moom jëkkëram daf ko wax muy fanaan ci salle bi ci salle bi la féetee moo ko ay doomam moom bu xëyee day defar néeg bi te pourtant bu ñuy ñëw si man da ngay interroger bu baax mais day am yoo xam ne peut-être dañuy ragal jëkkër ji yëg ko mu kii ko donc en ce moment là bi ñu paree foofu sama collègue sociologue laa àndaloon ma ne ko bu lii passé ak ba feebare bi xaw a dal dinañu woo jëkkër ji mu ñëw bu ñëwee dañuy waxtaan ak moom bu baax dina mun nañ sax ut ay intermédiaire ñoo xam ne mun nañ ñu ci jàppale ba mu gën a am na daal ay méthodes yu ñu am en tant que acteur du social pour mun a convaincre assistant social pour convaincre jëkkër bi au delà de loolu day am tamit ay violence sexuelle parce que yenn saa nga gis koo xam ne dañ ko opéré am na cas bu ma ci amoon fistule bi dafa teel a déclaré wu jëkkër ji ñëw indi ko mu ngi ko indee ñu teel ko faj mi ngi ko fajee macha allah mais dañ ko waxoon bu mu reprendre activité sexuelle am sama mu dem ba benn guddi rek mooy may woo di ma woo di ma woo muy insister ma ma wuyu ko mu ne jëkkëram dafa bugg a àndaat ak moom te médecin bi daf ko waxoon ne. Mm. donc bu mu reprendre activité sexuelle am léegi. am na benn femme boo xam ne euh, ci ñu gën a xarañ ci ñi amoon fistule la vraiment mu woo kooku aussi kooku woowaat na donc ñu woo médecin bi ma woo jëkkëram ma woo convoqué leen. parce que yooyu tamit dafa bokk ci xeetu violence sexuelle la. Mhm. waaw soit nga nga jabar jigéen ju ñu opéré ko léegi nga bëgg a àndaat ak moom wala nga bedd ko complètement dootoo defat ak moom dara te jigéen ñi dañ leen opération yi day réussir. Mhm. c' pas parce que dafa amoon fistule rek te waratul reprendre ay activités sexuelles am c' pas parce que dañ ko opéré léegi léegi aussi que da nga a pour reprendre activité sexuelle am. Mhm. donc góor yi il faut ñu jàppale ñu. jàppale ñu te xam ne Euh, lu ko takk tasu ko ba pare sëy du ku ku ci am ndogal rek keneen ki dafa war a bàyyi bopp euh, boppam message boobu laay lancé góor yi ñu jàppale ñu bu baax a baax te di dawal yërmande te xam ne ay jigéen lañu ñu jox leen leen ñu nekk ay personnes yu faible mhm. xam nga rek li ñuy wax ci sëy donc bu feebar ñëwee ku góor ki moo waral njëkk a nekk ku ko war a suturaal ku ko war a sagal mais sa jabar bu amee feebar te ëmb ñaari nit la ñoo ko seeq nga daal di koy beddi bokkatul amatul luy sëy nga teg ko ñii sax dañuy takk seen ñaareel jël yow teg la fële duñ la joxati dépense duñu waxateeg yow duñ la faale donc dog nañ lépp même boo opéré sax yenn saay dañuy douter pour reprendre ak yow activité wala ñu bëgg a defaat une activité sexuelle précoce donc loolu yëpp ñu bàyyi ci xel mhm. waaw te ku ci am loolu li ma la wax rek comme numéro téléphone bi ma la jox sax ku ci am lu la jaaxal nga wooñu ñu waxtaan ak yow wala ku ci am looy nëbbatu ñun on laa là ñun ci secret bi la ñuy dox lépp ci biir kunta lay doon ci biir secret boo ñuy wax ak ñun dinañ la jàppale ba euh, li nga bëgg li nga séentu nga am ko mm-hmm. te kenn du ci fen ñun duñ ci fen parce que wax nañ fii lu bëri te tudduñu turu kenn mm-hmm. waaw voilà Euh, pour euh, préserver la dignité de la personne. Euh, pour mu nekk dans la discrétion c' est c' important parce que ñu bëri tamit loolu mooy tax des fois duñu duñu ñeme. di approcher yenn structures yi. parce que buñ ko dañ dañuy jàpp bu ñu ko defee seen seen sutura xawee ko wax nga sànq wax nga wala aussi dañuy ragal sax seen seen jëkkër yi. Mhm. mais bu weesoo loolu tamit am na ci ay jigéen yoo xam ne mën na leen dal demuñu structure de santé. donc amul benn diagnostic boo xam ne defal nañ leen ko donc ak ñu suñuy croyance yi nga xam ne am nañ ko parfois di nga ci gis ñoom dañu naan woy dañ ma liggéey ak wala genre yooyu est-ce que façon cas yooyu di ngeen ko am benn camp de fistule bu ñu demoon en 2018 mm. bi ñu demee 2018 c'était à Kolda léegi sage-femme bi elle expliquait que dafa diagnostiqué benn femme bu am fistule obstétricale bu ñu ko waxee ne loolu la femme bi dafa bañ complètement dafa bañ complètement ne amul fistule obstétricale wujjam moo ko liggéey. Hmm. waaw parce que dafa ménage polygame la nekk. Hmm. donc c'était difficile bu sage bi demee rek donc euh, mu mu koy saaga di ko saaga di ko yàq lu nekk c'était difficile comme sage la wàllu médecine. moom mooy euh, moom mooy yëfam mooy yëfam mooy yëfam sax euh, faj bi au delà de faj bi xëy na xamul euh, quelle approche lay def mhm. léegi foofu dañuy invité travailleurs sociaux boo amee cas bu mel noonu nga dem gisi travailleur social bi moom mun na def médiation mhm. bu defee médiation mun na waxtaan ak moom am na posture bu travailleur social bi di am bu dina convaincre famille bi convaincre ndaw si Euh, ba ba ba ba mu ba mu dellu si par exemple tey jii bu fekkoon ne dafa ndaw soosu pël la yow bu dee travailleur sociaux da sé social bi séeréer nga wala lool mun nga jaaree ci cousinage à plaisanterie bi ba mm-hmm. delloo si ko wax ko ne ko lii feebar la parce que boo bu dee boo ñëwee rek ne pël bi séeréer la mm-hmm. déjà dina la déglu mm-hmm. parce que am na lu bëri lu muy préserver nga ne joolaa bi séeréer laa wala vice versa dina la déglu di nga mun a jaaree foofu waxtaan ak moom ba dellu si ko ba convaincre ko ne ko liy feebar la indi ko structure de santé bi moo tax travailleurs sociaux yi dañ ci dañ leen war a impliqué parce que ñu mun a jàppale médical parce que munoo tamit nekk ci problématique ku faj bëgg nekk ci problématique ku régler yeneen problème justement loolu problème la parce que euh, rek accueillir naa fi ay euh, travailleurs sociaux bu yàggul mais ñoom dañu am problème de recrutement ci fonction publique bi te alors que hôpitaux yi soxla nañ leen soxla nañ leen hôpitaux yi soxla nañ leen parce que je me dis que accueil yi dans les hôpitaux déjà nit ñi ñu ngi koy chaque jour ñu ngi koy. ñu ngi koy kaas ñu ngi koy kaas donc au delà de travailleurs sociaux yi sax war na mën a am ay sociologue euh, ci sociologue ay psychologue ci biir mu nekk benn. accueil bu yaatu mhm. boo xam ne médecin bi par exemple kenn du ko agressé sax par exemple tey da ngay gis au delà de la fistule am cancer tey ni ñu la koy waxee rek mhm. mooy indi musiba te bu fekkoon ne amoon na benn poolu ay spécialiste yoo xam ne ñooy ñëw bu nit ki amee feebar am na ñoo xam ne dinañ la ko dalalee dinañ la ko accueillir ba peut-être feebar bi du yegg si fu mu yegg si mhm. voilà donc euh, bon ñuy ñaan état bi aussi mu gën a jàppale travailleurs sociaux yi gën leen a impliqué bon ci ci liggéey bi impliqué ay sociologue parce que daal am na spécialité yoo xam ne kii mënul dem sans que parce que travailleurs sociaux yi peut-être dina am foo xam ne sociologue bi mooy limitam sociologue bi fee psychologue bi fee psychiatre bi sax hmm. donc am na yoo xam ne ci wàllu euh, <laughs> médical, même c'est bon le volet médical, mm-hmm. mais ah, les médecins, ont, voilà, euh, ils ont besoin de ces gens-là. Mm. Mm-hmm. Une équipe pluridisciplinaire, nous diapole, nous venir à bout de ce qui se passe vraiment, même dans le cas du Covid. Mm. Au-delà des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, des psychanalystes, xam ne vraiment, bu ñu ci jàppee rek euh, xëy na mun nañ convaincre population ba xëy na ñu mun leen ñu ñu jàppale ñu am recul par rapport à la maladie. yaa ngi wax sànq ci traitement bi que se c'est gratuit. Euh, mais bu weesoo loolu tam dafa am ay peut-être ay garab ak yooyu yoo xam ne dinañ ko jël est-ce que côté boobu tam prise en charge bi dañ leen koy teggil walla. non peut-être garab yi nag peut-être foofu moom xam nga. hôpital yorul garab yi xam nga mhm. pharmacie ngay dem mhm. mais peut-être am na yeneen yeneen service yu ne yu si nekk mun nañ leen fa def mun nañ def référencement par exemple boo demee action sociale boo amee sa ordonnance bu ñu xoolee sa sa condition dañ la ciy jàppale am na ay service daal comme ni ma la ko waxee rek service yoo xam ne ñun mun nañ trouver toujours ay ay subterfuge yoo xam ne pour jàppale leen parce que ñun euh, kiiw ñu lu ñu gën a mooy ñu am partenaire parce que CEDEAO par exemple pour couche am na ñu bëri dañu utiliser couche yi ci 23 mai bi joxoon nam ay couche yu baree baree bare mais ci biir Covid bi comme mënuñu dem hôpital dama distribuer couche yi ma amoon presque yëpp ba jeex na maa leen doon jàppale ku ñëw ma may la couche ku ñëw ma jox la li ma fa am may la en fait loolu mooy le problème parce que dem ay action sociale yooyu c'est vrai mën nga fa am dimbal mais le problème mooy ça prend du temps dafay yàgg ndax protocole beeg yooyu voilà dafa am euh, benn respect boo xamante ne moo ci wax a am mm. donc euh, li ma la wax rek lancer un appel <laughs> toujours au partenaire ba mu ñu mu ñu jàppale si yenn garab yi yenn yenn yenn couche yu bëri may ñu ko comme ça ñu ko ñu mun di la di ci jàppale femmes parce que euh, au niveau de la Marfo am na bureau médical boo xam ne pour bu xam nga c'est un euh, sous forme d'internat la femmes yi bu ñu ñëwee fa la ñuy nekk avant ñu leen di opérer mhm. parce que dafa jege hôpital mun nañ dox sax dem hôpital bu ñu leen opérer ba pare fa la ñuy dellu donc suñu mébét mooy bureau médical bi am naa déjà agent de santé communautaire mu amoon sage-femme boo xam ne day ñëw mun na fa bañ a nekk fixe sax mais buy ñëw bu fa femmes yi nekkee rek di leen jàppale si wàllu cet bi di leen expliquer ndax la ñuy defee couche yi moom mu bañ la lor naka ngay def po am na ñuy def appareil yooyu yëpp te bureau baa nga fa amagul matériel ñuy lancer un appel au ministère de la santé mu ne jàppale aussi équipeel ñu ko incha allah waaw. en général traitement yi mën na def ñaata per ñaata temps durée bi. bon foofu normalement. Euh, durée bi dans le centre de quinze à trois mois ça dépend. Mm. waaw ça dépend de jours à trois mois. Mm. loolu loolu mooy durée maximum. est-ce qu'il n'arrive pas parfois ñu opérer ku jigéen ki après mu am resurgence mu ñëwaat mu def rechute. waaw loolu bunu ci ñàkk mm. munu ci ñàkk comme li ma la wax nii rek violence comme li ma la wax loolu day day am moom day am rechute moo tax euh, opération am na ñoo xam ne am nañu huit neuf opérations. huit ba neuf opérations parce que ni ñu mën a maîtriser par exemple la fay xew donc ñun fi mu ne nii bu ñu yo euh, bu ñu bu ñu léegi bu ñu opéré te nit ba pare dinañ xool poste de santé ba fa gën a jege wala fa dëkk parce que yenn saa ñii dañ jóge ay Sédhiou ay Kolda. ba fa gën a jóge wala travailleur sociale bu fa nekk ñu defal ñu référencement mm. pour mu koy mu ñu koy toppal parce que sinon rek ni risque de risque rechuté wala risque mu mañ a def hygiène bi xam nga hygiène bi tam daf si am solo couche yi mm. affaire yooyu mm-hmm. waaw c'est juste pour dire que ne lépp ci lutte bi c'est transversal si mm-hmm. début bi wax nga affaire u tali yeeg yooyu pour que ñu mën a am accès ci yenn localité yeeg yooyu mm-hmm. mais aussi yenn euh, assainissement tamit ndox mi tout cela dafa nekk ay mbir yoo xam ne saabu ak yeneen pour hygiène bi parce que wax nga ko sànq feebar bu sew la donc dafa soxla hygiène. Mhm. moo tax gis nga bu ñu ñëwee bu ñu leen dañ leen defal benn kit. Mhm. ministère de la santé day def kit d'hygiène bi def saabu def yi def serviette hygiénique yi defal leen sër ñun tamit noonu lañu def dañ lay jox paan jox la sër jox la drap defal la ci ay omo yëpp yëpp pour daal pour won la ne daal cet la laaj. Mhm. cet la laaj xam nga jundu jundu jotu borom xel voilà léegi pour insister et Euh, par agent de santé bi ñëw mun la wax ne la vraiment da nga war a set ñoom sax xamal nañ ko seen bopp ñu ci bëri tey munoo toog ak ñoom ba xalaat ne fistule lañ am dañuy bëgg seen bopp. Mhm. dañuy bëgg seen bopp parce que duñu bëgg ku leen kii dañuy bëgg seen bopp fonk seen bopp. Mhm. boo boo ñëwoon tey boo ñëwoon par exemple si structure ba dajeek ñoom doo ci xam ku am ak ku amul bu ñu toogee ñu ñii ñëpp. donc loolu moom vraiment euh, dugg na seen bopp bu baax a baax parce que sénégalais dafa mën a sagal boppam. dafa gëm boppam mhm. waaw loolu la. Mhm. Euh, maa ngi xalaat aussi ñi nga xam ne ñooy seen doom yi. Mhm. Euh, donc dina am benn perturbation bu mu jur ci ñoom surtout. tey jigéen yi nga xam ne amuñu chance ñu beddi leen donc seen famille jëkkër yi ak seen jëkkër yi ci boppam daal di leen abandonné ñoom seen doom yi aussi dañuy nekk dans le désarroi tey est-ce que am na benn peut-être euh, benn aide wala benn appui wala benn peut-être suivi boo xam ne di ngeen ko am ci xale yi. Euh, pour la plupart du euh, des femmes nag ñi nga xam ne sont affectées par la fistule ay ñu ci bëri ay primipare lañ. Mm-hmm. ay primipare lañ mooy première grossesse waa doom bi sax day dellu mm-hmm. bon ñi ci am doom am na ñu ci am doom nag mais en général xale ak yaayam gis nga li li li li dindi jëkkër ak ci jabaram dindiwul doom ci yaayam mm-hmm. xëy na mu nekk doom bu gën a mag mais mu mu comprendre mu xaw a am rus mais pour mu rejeter yaayam dina jafe mm-hmm. mais tamit même dans ce cas là on est là disposé à accompagner xale yi defal leen suivi Euh, psychosocial ñoom tam soxla nañ ko parce que ku sa yaay tey jii tey ñu ne sa yaay lii moo ko dal voilà voilà mm. ñoom tamit xale yi soxla nañ soutien soxla nañ euh, accompagnement psychosocial te comme ñun ministère de la protection des enfants la toujours fekkee ne am na yeneen lu mu laaj suñu naataangoo yi toppatoo xale yi ñu ngi ci ministère bi suñ dinañ dem vers ñoom pour ñu gën ñu jàppale mm. waaw ñu ngi ci mais en général ñu ci bëri bëri ndeysaan amuñu doom mm-hmm. à la naissance boobu boobu grossesse mais am na ñoo xam par exemple am nañ chance ñu opéré leen ba ñu amaat doom par césarienne. Mhm. donc loolu la donc loolu yëpp suñu xel mu ngi ciy màcc. Mhm. waaw wax na léegi lu am solo danga ne euh, ñi nga xamante ne euh, mosuñu am doom en général seen première grossesse ñoom lay ñoom lay dal. Mhm. donc est-ce que tey médicalement scientifiquement am na luy expliquer loolu. Euh, bon mënu ma koo wax a 100 pour cent parce que du ma médecin. Mhm. mais dafa am ay facteurs favorisant mhm. yoo xam ne boo yoo xam ne dafay yombal fistule bi maanaam mooy xarafal jigéen. maanaam sëy bu teel mhm. euh, am doom bu teel yooyu yëpp wala yéex a am doom yooyu yëpp mun na nekk yoo xam ne day day day day yombal terrain bi terrain fistule c'est important ñu xam peut-être facteur favorisant favorisant waaw loolu mooy facteur favorisant mooy euh, euh, mutilation génitale féminine yi mooy xarafal jigéen mhm. maanaam teel a may xale bi mu teel a sëy teel a jël grossesse te amul suivi bu fa war wala nekkul foo xam ne structure de santé ma nga ma nga fa yéex a am doom tamit teel a yéex a am doom teel a sëy tamit yoo matu bu yàgg yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel wala nga am handicap ah, mm. wala nga nga am yenn taay yi yooyu yëpp dañ ko war a sóoraale yooyu yëpp ay facteurs yoo xam ne mun na favoriser fistule bi ba moo tax peut-être à la première grossesse rek nga gis mu am nit ñi di am jafe-jafe waaw waaw parce que euh, fistule bi mu ngi euh, tranche d'âge bi muy laal mooy quinze ba quarante neuf ans 15 à 49 ans gis nga donc tout dire. ça tout dire ça tout dire mm. waaw loolu la. voilà ba tey rek ngeen di déglu seen émission SOS santé ci euh, Rewmi FM 97.5 également ci rewmi.com euh, donc euh, tey jii nii. li nga xam ne moom mooy wàllub fistule bi mu nekk ci période boo xam ne wax nga ko sànq période bu délicat la aussi mooy Covid bi donc fu mu toll nii financement yeeg lépp a taxaw. lépp taxaw yeneen feebar yi dañ leen daanaka fàtte entre guillemets mhm. parce que euh, regar yëpp ñu ngi braqué ci euh, Covid bi mhm. alors que yeneen feebar yi ñoom taxawuñu ñoom ñu ngi ba léegi di avancé di continuer di dal nit ñi tey dans le cas de de la fistule obstétricale tey naka ngeen di def peut-être pour euh, pallier ci yenn manque de financement yooyu parce que du ñàkk ndax fu mu toll xam nañ ne gafa yëpp xaw am ay jafe-jafe. waaw loolu la gis nga comme jërëjëf moo tax ma kontaan sax ci invitation bi parce que dama la ne boo amee fistule rek da nga vulnérable. Euh, ñi amoon nañ ñu ci jàppale woon di leen accompagner ba ñu commencé seen activité euh, Covid bi ñëw da ñu ngi ci doon gis seen bopp Covid bi ñëw mu nekkati frein ñoo arrêté par exemple am na koo xam ne congélateur am la yoroon. di jaay di jënd ay yëreem di yóbbu dëkk ba di jaay di placer muy dox bu baax a baax mais biñ tëjee école yi rek mu activité am arrêté donc même bu école yi ubbiwaatee sax dina ragal a dem jaay ak yooyu parce que mesures yi xëy na dina restrictive am na ñu ci bëri dañuy yëngu ci njaay te gis na njaay bi léegi xam nga boo jaayul comme ay daar alimentaire day xaw a jafe moo tax ñu ñu jàppale woon femmes yi ministre defal leen ay kit jàppale leen vraiment euh, on a 148 femmes mais gis nga xam nga ne financement yi dina xaw a sooxe mhm. liggéey dina xaw a euh, kii jàppandal dina léegi dinañu xool am na ñi coo xam ne tamit seen financement matul woon dinañ leen xool nu ñu leen di jàppalaate renforcer leen seen financement si soobee yàlla ci lu yàggatul mais ñi nga xam ne seen financement bi dafa ñu ngi ci woon ci liggéey bi dinañ jéem a xool ni ñuy ñu leen di xoolee seen bu dee ku yor ay embouche ay jur moom du du jafe. Mhm. ñiy def commerce dinañ xool ak ñoom parce que moom ñu ngi jaay ah. Mhm. bu ndànk-ndànk peut-être ki ki doon jaay ci école yi moo xaw am problème mais ñu ngi jaay ndànk-ndànk mais liñ doon am ci koom-koom. moo wàññeeku bu baax a baax. dinañ leen taxaw nag pour. ñu bañ a perte wala ñu bañ a chuter pour retomber waat dans la vulnérabilité. Mm-hmm. waaw ñu ngi ñu ngi jokkoo ak ñoom bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw tey yan zone ñoo gën a touché au niveau du Sénégal boo ñu mënee wax quelques régions ak yooyu. waaw y a sept régions. Mm-hmm. sur les quatorze régions. donc muy la région de Saint-Louis Matam hmm, Kolda Ziguinchor Tamba Kédougou ak euh, ak Sédhiou. c'est les sept régions. à forte de prépondérance donc lii li waral sax ñuy def tout le temps suñu camp de fistule du Kolda mooy zone boobu xam nga ñiy jóge Tamba ak euh, Kédougou dinañ leen mën a jël en charge mais surtout Kolda Sédhiou Ziguinchor waaw la zone sud moom euh, c'est la zone la plus touchée et la zone du nord et la zone centre vraiment <laughs> mooy les régions les plus touchées waxuma na yeneen régions yi nag di nga am ay cas Kaffrine ay cas Kaolack. mais fële la gën a concentré wu mhm. la gën a concentré wu. fële la gën a concentré est-ce que tam euh, de manière euh, spontanée parfois di ngeen dem def ay genre causerie ay euh, VAD pour jëm bu jéem waxtaan ak surtout góor ñi. ci ci sujet yooyu noonu. waaw loolu c' est c' est prévu PTA bi. Mhm. mais xam nga ak Covid bi on avait dit que. ak Covid bi bi on avait prévu. de on avait réparti les zones en trois dañuy defoon la zone du nord. def la zone centre mooy euh, Kédougou Tamba ak zone la la zone du sud Kolda Sédhiou Ziguinchor dañ prévoir on defi fa comme ni nga koy waxee ay ay euh, euh, causerie ay pour surtout pour la prévention. Mm-hmm. boo demee sur place di nga gis sax nit ñi dañuy ñëw vers toi parce que am na ñoo xam ne dañu nëbbatu ñu bëri bëri loolu lañ prévoir on mais malheureusement ak Covid bi donc on n'a pas pu quitter. suñu jotaguñu suñu euh, ay fonds yi ba léegi aussi. Mm-hmm. léegi bu ñu jotee suñu fonds yi bu ñu ko permettre bu fekkee ne situation sanitaire bi mm-hmm. permettre nañ ko. on va faire waaw bu ndànk ndànk rek ndànk ndànk rek la ñuy bu ñu mënee jël aussi ay femmes on va le faire parce que dajale ay nit. nga jël vingt femmes dara leneen te xamoo fi zone yi fi ñu jóge yooyu tamit mais pour le moment mais ñu ngi leen di xalaat bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ñaan partenaire yi bu ñu mënee may couche en attendant ñu leen di. envoyé couche yi ñuy ñëw en attendant wala bu ñu jotee suñu sañu fin euh, jënd ay couche yu bëri bëri pour leen di leen koy jox en attendant ak euh, ñu mun a jëlaat ay femmes mhm. parce que tout le temps dañ lay woo parce que am na ñoo xam ne defaloon naa leen ay enquête sociale ñuy xaar mais tout le temps dañ lay woo fu mu toll mu ah, xam ngeen situation bi fu mu toll donc situation bi xawee tane rek incha allah dinañ dinañ démarrer waat ak beneen projet. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. am na per avant Covid bi am na bateau bu fi nekkoon bato Mercy Ships. Mm-hmm. ci euh, intervention yi ñu doon amal fustile ñu amee fustile dafa dañu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom lañu ñu woon mais bon malheureusement dañoo dellu. parce que Covid beek yooyu. <laughs> voilà encore une fois sacré Covid. voilà sacré Covid vraiment <laughs> li muy yàq dafa bëri. dafa bëri donc euh, doy na waa fistule bëri woon na ci bu baax a baax parce que defoon nañ ci ay réunion ak suñu partenaires yu nekk euh, au GIP laa mën a wax <laughs> hôpital Idrissa Pouye mm-hmm. donc muy équipe professeur Magaye mm-hmm. vraiment ñoom ñun ñëpp impliqué impliqué wu nañ ci impliqué nañu ñu ci woon mm-hmm. pour ne dañ leen di jël femmes yi ba ñu commencé di def recensement ci région yi ak ONG yi pour femmes yi war a ñoo ñu opéré la loolu naroon nañu gën a dooleel mhm. dooleel si parce que nombre bi naroon na jël naroon na takku mais malheureusement gis nga ko bato bi dellu na mhm. donc muy feebar bi moom li mu gàllankoor doy na waar doy na waar ñuy ñaan yàlla rek mhm. mu jàppale ñu waaw teggil ñu ko si jàmm ak salaam ba ñu mun a dellu fu ñu nekkoon mhm. na reprendre suñu activité parce que ñu bëri dañu yaakaar ci ñun mhm. te yaakaar dafa dafa dafa metti mhm. mais ñun quand même on est reste disposé on est là ñu ngi à leur écoute ñun ñëpp en général le ministère de la femme ñu ngi si pour jàppale jigéen ñi jàppale góor ñi tamit jàpp mais surtout jàppale jigéen ñi vulnérable ak xale yi incha allah. Euh, Marfo ñaata temps la def kañ ngeen ko taxawal ak yooyu. waaw Marfo nag en 2015. Mm. lañ ko créé donc sa fait juste cinq ans. bu ma nee xam nga gune gu am cinq ans la. Mm. mais ñu ngi doxal. waaw ñu ngi doxal ñu ngi mm. doxal. Euh, am na aussi euh, objectif boo xam ne fixé woon ngeen ko donc au niveau du ministère de la santé pour éliminer li nga xam ne moom mooy fistule bi d'ici 2030. donc d'ici 2030. li ci des bëri na bëriwul parce que le temps passe vite tey est-ce que euh, maanaam mbëbët boobu noonu c'est encore euh, loo xamante ne lu faisable lu faisable la. waaw lu faisable la comme ni ma la ko waxee woon rek gis nga bu ñu xa bu ñu demee ci camp de fistule bi li ma la waxoon deux mille deux mille dix-neuf bi mm. daanaka amul cas bu bees kon suñu xel dal na ça veut dire que. les ministère yi seen structures yi mu teg en place mu ngi mu ngi fonctionner ak mécanisme yëpp mu ngi fonctionner bu baax a baax a baax nee naa la ay nouveau ay ay cas ay fistule récidiviste rek mhm. lañu ñu gën a jël en charge boo ci jëlee quatre-vingt-dix-huit pour cent yëpp ay fistule récidiviste la donc ça veut dire que fistule baa ngi reculer bu baax a baax donc en en 2030 c' est bien possible ñu éliminer fistule li ma ci jaaxal rek mooy li ciy ñuul ci soow bi <laughs> mooy li xew fi euh, temps yi mhm. mais bu euh, bu ñu bu bu ñu ñu comme ñu ngi liggéey daal ñu ngi liggéey ñu ngi xalaat lu bëri fi mu ne nekk ne même bu ñu mënul dem sur le terrain bu fekkee ne heure bu euh, feebar bi bu ko fi yàlla jëlee rek dañuy accélérer rek mhm. su ko defee en 2030 dinañ mën a accès accéder ci suñu objectif incha allah. est-ce que am ngeen ay cas de fistule yoo xam ne ngeen traité leen ba ñu wéer ñu toppatoo seen kii ba bien après ñu amaat grossesse sans problème est-ce que cas yooyu am na. waaw mos naa suivre benn film boo xam ne. ci journée internationale de la fistule la woon professeur docteur Labou la woon. bu hôpital de Grand Yoff benn jeune fille la. boo xam ne dafa am fistule obstétricale première grossesse am mu opéré ko. ñu suivraat ko ba mu ñëwaat hôpitalu Tamba ah, ba def ba accoucher ba amaat doom bu góor mm. voilà donc c'est dañ koy suivre ñoom c'est leur fierté laay wax mm. donc mm. c'est fort possible et c'est bien possible mhm. waaw pour dire que xam-xam baa ngi fii xarañte baa ngi fi nee naa la en Afrique en Afrique suñu plateau bi médical amul beneen bu fi am parce que ñoom dañ leen di soxla partout mhm. waxuma la Sénégal gi mais dañ leen di soxla partout en Afrique dañ fay dem di def ay intervention ba bu ñu leen déggee sax ñu ngi ñëw fële nee naa la waa waa Guinée Bissau yëpp mhm. dañuy jéggi frontière voilà ñëppay ñëw ñëppay ñëw bokk ci camp de fusée kon vraiment am nañ chance am plateau médical bu relevé di encourager médecins yi di leen jaajëfal ci seen liggéey bu baax bi ñuy def mm. waaw nekkee dañ leen war a jàppale ci tali yeeg yooyu rek mu baax <laughs> ndax accès bi facile mais tali ngi dem quand même ngi dem ah, <laughs> li des ci émission bi bariwul peut-être ñu may la rek nga daal di wax seen projet futur yi nga xam ne am ngeen ko bien sûr parce que fu mu toll nii il faut conjuguer avec la Covid mhm. donc euh, lan ngeen mën a lan ngeen gis ne daal nii yaakaar ngeen def ko peut te du am Covid bi loo xam ne dina ko ci indi trop comme gàllankoor mais aussi même bu yàlla projet yi nga xam ne dëgg ma ngeen ko. incha allah fi mu ne nii daal ñu ngi ci wàllu euh, prévention bu bare bu baax a baax di communiquer justement ñuy kontaan ci émission bi ñu invité parce que nit ñi dañu ñu déglu bu baax. ba na gën a xam ne ñu ngi leen di xalaat donc ci prévention ñuy wax surtout jigéen ñi bu ñu xalaat ne Covid am na rek nga war a. nga nekk jigéenu wërër nga ragal a dem hôpital déedéet jëlal say mesures barrières comme ni ñu la ko waxee takk sa masque raxasu yor sa gel dem hôpital def sa visite normalement boo waree wasin bul làqatu ne covid bi dañ may wàll nga dem hôpital wasinee fa mucc ci jàmm ak salaam moo gën di làqatu ba leneen fekk la ci muy fistule obstétrica di yóbbu xale yi aussi ñu ñu ñu toppatoo leen mm-hmm. yow nga toppatoo sa bopp ci après ci Euh, wàllu def seen def seen visite daal def seen visite mm-hmm. balaa <laughs> ñu parce que fi ne nii vraiment cas yi fistule yi ngi wàññeeku sinon ñu ko deful rek bu wasin bi yàggee ci kër gi nëbbatu bi dinañ yeneen cas de fistule dina gën a déclaré te kon duñu mën a atteindre suñu objectif en 2030 mm-hmm. loolu la ñuy ñaax jigéen yi di wax jigéen yi ku ci amoon activité xam nga loolu moo tax ñu leen di wax toujours ñuy ubbi seen seen si mutuelle bi wala euh, seen compte waaw bu bu bu activité bi demee ba sooxee bu ñu woowee ñu xool man activité woon la ñu war a mun a def ku doon commerce par exemple temps yi war nga mun a changer def di jaay waaw pour <laughs> nekk dans le contexte daal Euh, même boo amee ay masque sax ngay jaay mu euh, pour sa activité bañ a sombre en attendant euh, feebar bi di fi jóge nga nga nga reprendre sa activité normale pour le moment waaw surtout loolu daal reconversion des activités on va le faire pour ñu bañ a seen xaalis sombre waaw nu ñu waxtaan ci ñoom ak ñu baax koo ci jot daal danga koy wax sa activité am na ñuy déplacé wu di ñëw ñu ne ñu ngi en attendant dañu bloqué gum xaalis bi mhm. donc ñu bañ ñu ñu trouver gum ay jaay eau de javel gel masque en attendant daal comme situation bi loolu la laaj pour ñii di jaay waaw ñu adapté wu ñii di def embouche bovine ñu di def poulailler loolu moom yàqul dara ça peut continuer ñoom ñu ngi continuer seen activité mais surtout ñu nekk ci commerce yi ñoom ma xaw jaaxal mm. bon ñoo leur demande de faire une reconversion par rapport à la situation du moment ba ba ba li changer di am wala ñuy retomber dans la profonde vulnérabilité te du lu ñu gënal voilà euh, émission bi jeex na. Hmm. ñu may la nga tàggatoo ak mbokk auditeurs yi. waaw kay mbokk auditeurs yi Rewmi FM maa ngi jaajëfal ñëpp di leen ñaan ngeen dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol. Hmm. Euh, di leen wax ne fistule obstétricale ku mu ku ko xamul c'est parce que danga amul ku la jege ku mu dal hmm. mais ku mu ku mu dal mu jege la di nga xam ne feebar pour doy doy doy waar la feebar boo xam ne da day dindi dignité nit maanaam dignité nit. te mun na la yóbbu sax ci ngay am ay problèmes psychologiques mhm. yooyu moo tax ñu ngi leen di ñaan daal ñu jàppale ñu jàppale jigéen ñi di jaajëfal tamit madame le ministre mi nga xam ne euh, euh, boole na femme yi fistule yi ak euh, kii na leen am na même ñu mu appuyé sax si tabaski bi ñu bindoon am appui seen appui tabaski jàppale leen daal bu baax a baax jox leen ay kit ñu jàppandal ci loolu parce que dina leen permettre du ñu jël xaalis bi ñu yoroon di ko di ko jaay vraiment donc di remercier sama collègue yi nekk ci ministère bi di ma jàppale ci femme bi notamment PASNEC ak SENAF di ministre remercier waa ministère bi yëpp di remercier waa Sénégal di remercier équipe ministère de la santé bi nga xam ne duñu activité bu ñu may def dañ ma ciy boole am ci man confiance di ma jàppale mm-hmm. di ñaan euh, partenaires yi nag ñu leen tàllal loxo pour ñu ñu jàppale ñu Euh, pour ñu jàppale femme ñu bañ a waat ci vulnérabilité bi. Mm. waaw surtout ci période bi ñu toll di lancer appel partenaire yëpp. Mm. di la jaajëfal di jaajëfal équipe Rewmi FM bi yëpp. Mm. di ñaanal ña Sénégal jàmm. ñaanal yàlla mu teggil ñu feebar bi. Mm-hmm. teggil ko Afrique teggil ko monde bi yëpp ndax ñu mun a delluwaat si suñu sago mun a jàppalewaat ñi ñu soxla. Mm-hmm. waaw di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. di mm-hmm. la jaajëfal également bu baax a baax euh, ñu doon dalal tey Fatou Seyline Bass Diouf di coordonnatrice bu maison d'accueil et d'appui à la réinsertion des femmes. pour la prise en charge de la fistule obstétricale Marfo euh, nekk nag feebar boo xamante ne feebar bu metti la wax na ko léegi boo xamante ne daal jigéen ñi ko am soxla nañu ñu gën leen jàppale di remercier également auditeurs yi nga xam ne ñooñu doon déglu ci la 97.5 Rewmi FM également si rewmi.com di fàttali ni également mun ngeen dégluwaat émission bi ci euh, suñu chaîne YouTube mi officiel di remercier ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci émission bi di remercier encore une fois euh, Khadija Diallo moom nag euh, bon damay retrouver camarade de promo <laughs> voilà donc pour dire que rek moom itamit mu nekk nit ku ku baax bi di waxtaane ci émission bi ba léegi donc mu jàpp ci bu baax également ah, mu farlu ci di ko jaajëfal bu baax di la remercier également yow ci sa disponibilité ak euh, waxtaan bi mu amoon solo torop di jaajëfal ñëpp ñu doon déglu di leen dig dajee ajuma bi di ñëw incha allah ci beneen numéro beneen invité ci Rewmi FM